jumaay poroxaan ji ginnaaw bi liggéey bi matee tey jii nag ci talaata ji mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci daayira yi ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo wër poroxaan ñu ñëw ci jumaa ji ngir sëkk ko dindi xeer yi ak mboolem esplanade bi nga xam ne moo wër jumaa ji ba lépp mën a maase. tey dañoo xëyoon maanaam ci mbirum mbale mi defar ratu bay li wër jumaa ji ak peggu jumaa ji yëpp dëkk bi maanaam dañoo maasoo daal lépp loo xam ne daal lu lu takk takk la ci biir jumaa ji wala ci biti. Euh, sama borom dogal mbooloo mi génn nañ ak Pastef ci ndigal Sëñ Muntaxa euh, ñu bale ko ratu ko sëkk defar lépp. Euh, sant yàlla bu baax ci ndigalul sëriñ bi rek fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci ndamul soxna jaare lii ñu teewee ko comme ni joxee ndigal yi rek ci ay bay ak rado ak satal ko bañ mën fee teeru gan bañ mën a julli ni mu waree loolu moo waral suñu teewaay. fas yéene ànd liggéeyal soxna jaar rek ànd ak suñu jëwriñ si Cheikh Asfal mi nga xam ne mooy jëwriñu fédération Porokhane bi yëpp ñun na yàlla daa dogal ñuy liggéey ci xidmatu soxna jaara doon fa deuxième jëwriñ sëñ Cheikh doon suñu jëwriñ ci fédération bi woote woon na fa bëgg ñu àndandoo moom ci liggéey soxna jaara bi. waaw bale buub sëkk defaraat lépp rek lu war a defar loolu la sëñ bi santaane waaw. waaw sant rek alhamdulilah ñu ngi tàmbali bisimilah rahmaani rahim te seeni koo eggale ci alhamdulilah di sant borom poroxaan ndax moo waral li yépp ñuy ñaan di ko fekkee ay déwén yu bëree bari sant nañ nag bu wéré wér ndax liggéey bu mel nii ci poroxaan soxna jaara jagleel ñu ko amuñu fayam di sant sëriñ tuuba ndax soxna jaara mooy yaayu xaadim ñu ngi sant nag bu wéré wér bañ doolee bañ doonee ay taalibe sëriñ bamba waaw kontaan nañ ci liggéey bi ñëpp a ngi góorgóorlu gis nga fii ni mu mel ñëpp ñëw nañ ku ne bëgg a barkeelu. liggéey bi nag mboolem taalibe yi wuy si nañ ko kenn ku ne bëgg cee barkeelu waaye def liggéey bi ak Pastef. Euh, li ndigal la euh, liggéey Sëriñ Tuubaa mu jëfe rek euh, dañuy sant yàlla mu ñu su mu taxaa ba ñu fekkee liggéey bi ba mu tàmbalee ba fu mu yem kon sant suñu borom tabaaraka wa taala baax a baax dañaa ne képp koo xam ne fekk nga ko wala nga yëg ko yàlla na sama borom defal faju aajo àddina ak alaaxira barka Alaaji Fall xam nga murit moom moom ndigal rek la ñuy déglu bu ndigal li ñëwee rek ñu fas yéene ko jafé ba paré pare dégluwaat rek leneen ndigal loolu mom loolu lañ fas yéene nekkee waaw di ñaan Serigne Touba comme niko Serigne Touba waxee nak fa kullu man xat dama ni aw saara fa naji wax firloo aw saara képp ku ma liggéey wala nga siyaara mi suñu borom jéggal say bakkar kon nak dañuy fas yéene daal ñun di liggé Serigne Touba rek ba faat sant rek ak am yokuté bu baax gëna am yokuté gëna xam gëna xam ni ñu seen bi defal gën ko fonk gën ko bëgg. ndax ñun buñ sañoon suñu maam buñ sañoon fu ñu toll liggéey Sëñ Tuubaa ci la ñu ne rawatina liggéey Soxna Jaara ndax ñun dañoo am sens su dëkkee Poroxaan kon moom bu ñu sañoon lu ñu nit def loolu ci liggéey Soxna Jaara lay bokk fi la ñuy tàmbalee nag te fi la ñuy yemit waaw. jamono bi nag naaj wi tàng na lool waaye mboolem taalibe yi yëguñ ko la ñu gis moo di ndigal li nga xam ne moom lañ leen jox ñu jëfee ko ànd ci xol bu neex. yëguñu ko tàngoor yi moom yëguñu ko ndax li ko waral mooy maanaam sëriñ bi ba mu ñuy jëfali xam ne doon tàngoor ak sedd dafa demoon rek di jëf lam noonu jëf na ñun ñoo tax kon ñun li ñu war rek mooy ñun ñu mën a ñu jëfandikoo ko jëfandikoo gi nag ci lañ nekk nii. Euh, boo ci jublu jubloo soxal na sedd ndax amul leen lu ci nekk lu njariñ njariñ àdduna ak alaaxira loolu moo ci nekk kon képp ko xam ne mu murid nga am nga Pastef tey liggéey ci liggéey bi def si kem kattan loo mën loo mënut mag ak ndaw góor a jigéen. sant yàlla bu baax di ci am mbégte bu baax a baax ci ndam lu rëy lii nga xam ne su ndam la di ci sant yàlla bu baax bi ñu suñ borom taw fexalee taw fexalee ba nu fekkee ko ak jàmm di ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool te wëral ko fa ci barkeb Serigne Touba barkeb Soxna Jaaratullaahi ak mboolem taalibe yi ñëpp rek. am na solo lool sant nañ ci yàlla nag bu baax a baax ndax Porokhane moom ku fi mën a def rek loo fi waaye mën a def rek suñu soix bés dafa ko defal rawatina sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk tey di jëf jëf ju am solo ji mu jëf taxawal jumaa yi Porokhane ji ànd ceeg mboolem waa Sëñ Tuubaa ñun nag lañ ko defal waaye ñun moom mënuñ leen a fay liñ mën rek mooy di ñaanal suñu doxaam gën fa yàgg loolu gën a wér. jigéen ñi takk woon nañ lool ci liggéey bi wane ci ak Pastef te nanguwuñ benn yoon góor ñi mën leen ci. Ah, soxna yi ñun ay yaay faal lañ waaw te soxna jaara moo waral bis bi kon soxna yi ñoo war a gën a takkaayu bañ baay faal yi yóbbu leen ko. setelaat li nga xam ne moo wër jumaa ji ak sëkk bi laajoon na ay jumtukaay loole moo tax maire bu Poroxaan jàppale leen ci. ànd kook ñi nga xam ne ñoo di ay conseillers parce que ba mu ñëwee soxla woon nañ peel ak euh, kii ak yooyu yëpp yàlla def na dimbale nañ ko ndax am na ay société tu fi nekk ñoo xam ne ba ñëwee sollicité leen abal lañ ñu seen seen i peel seen kii seen seen camion seen yëpp loolu maire bi moom loolu moom dimbale nañ ko ñëw ba xam nga boo gisee na gis nga fi ay camion gis nga fi ay peel gis nga fi ay benn gis nga fi nit ñi ak ñooñu ñëpp. liggéey bi nga xam ne cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir moom la def ci bërëbu sell bi di poroxaan di jumaa ju mucc ayib ji nekk na lool maire bu poroxaan fësal na ci ak mbégteem ñaanalaat sëriñ Mountakha Mbacké Bachir. yëg yëg ma mel daal lu dul di santaat xaadimu rasool ak maam jaare mii xam ne moom mu ngi fi tëdd di sant suñu di wax jërëjëf sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général poroxaan avant mu doon xalif général mourid ne tey jii. lii ñu defal képp ku dëkk Porokhane neex na la waxantuma la man man maire aujourd'hui daal lu tubaab di wax je suis un maire comblé waaw. ubbiteeg jumaa ji nga xam ne nag sëriñ bi wootewu ko ndax jamono ji nga xam ne moom lañ nekk teewul daañu jël ay matuwaay ngir sàmmoon sàmmonteeg mbooleem norme yi nga xam ne moom la waa kër docteur wax loolee mairie bu Porokhane ñu ngi ciy liggéey. dañoo jël suñ comité boo xam ne bët bu set heure bu nekk dañuy waxtaan di nan la ñuy pour moytu mbas mi. tey comité boobu dajee nañu démb boo am nay conclusion yu am solo yoo xam ne jébbal nañ ko sëñ bi ba ñu ngi si. wax ne daal lépp kiyal nañ ko bu soobee yàlla bu bis ba xam nga ñun woo sëñ bi da koo yëgal nit ñi mais woowul leen. kon moom bu ñu sañoon lu ñu nit def loolu ci liggéey soxna jaar lay bokk fi la ñuy tàmbalee nag te fi la ñuy yemit waaw. taalibe Serigne Touba yi nii lañ koy jàppoo fépp foo xam ne jox nañ leen fa ndigal dañ koy jëfee te kenn du nangu sa morom mën la ci nii lañ koy jàppoo te duñ bàyyi benn yoon tant que liggéey bi matul.